ngi fii si seen euh, kër gu mag ci quartier bi nga xam ne moom Habib Diallo fii la fekk baax fii la defee euh, maanaam débuté début carrière am balaa muy doon te international kon xam naa dañuy continuer waxtaan bi xool un peu euh, koñ bi ses amis d'enfance waaye itam après du ñàkk dinañ dem xool comité d'organisation bi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk nan lañ koy waajalee ginnaaw Sénégal marché bi nga xam ne war na ko amal fii contre Congo Brazzaville voilà kon ba léegi ñu ngi fii ci euh, maison famille yu international sénégalais Habib Diallo bi dégg ngeen way juróom kàddu yu mu ci wax xanaa ñu jàll keneen ci euh, kër gi bu dee mën naa ko waxee noonu euh, nga wax ñu tur bi ak wax ñu lan mooy sa digganteeg Habib Diallo. waaw man maa ngi tudd assan Dia waaw Habib sama xarit la sama gaay la sama doomu ndey la dafa nekk nit koo xam ne nit ku baax la nit ku modeste la ku xam nu mu mel rek noonu la mel ba El Hadj Omidine waaw parce que bu mu nekkee kon euh, professionnel ba léegi xaritam ñu mu daan àndal ba tey ñoom rek lay àndal ba léegi. justement yéen depuis kañ ngeen ngeen commencé ànd xaritoo bi kañ la. Habib euh, dañoo bokk école de football centre euh, Aline saw ñu nekkandoo foofu di football di ànd ba yàlla def mu dem génération foot mu jógee génération foot ci la voyage yi dem comprendre nga bu mu demee bu mu ñëwee ba léegi xaritam ñu mu daan àndal ba léegi ñoom lay àndal ba léegi. waaw aussi ndayam ak baayam tamit gërëm nañ ko trop mu nekk ñoo xam ne dafa jàppale ay rakam jàppale ay magam comprendre nga mu nekk nit koo xam ne moom it aussi nit ku baax la. Euh, fàttali ñu tur bi mama. Euh, madame Khady Ba mhm. waaw. Euh, koñ bi ñu la fekk mu mel ni fii la Habib Diallo dëkk lan nga ñu mën a wax ci moom moom international sénégalais bi. Eh, xanaa rek laa xaw la sat dalagul di sant yàlla suñu borom bi tabaarakàllaa ak yonent bi ak weer bu tedd bi. ah man de bajanam la xale bu yaru xamaluma ko dara jom jom la ko xame ak noppi respecté ñepp ci koñ gi dal ñun dal ndam la ci ñun on peut dire que c'est le retour de l'enfant prodigue euh, maman wu abib Diallo yi fi ci Thiès maman lan ngay lan nga ñu mëna wax ci abib Diallo. abib xalé bu yaru la abib xamone ni lay mëna mel ndax dafa jox ndeyam yi respect man mok sama dom ño doon and mex dafa bax yaru lu ma ko mosoon a digal da koy def xamoon na ne bés bii dina ko am ñun ñëpp nag takku nañu nekk ci gannaawam yal na leen yàlla may ndam. ba léegi ci série de témoignages yi nga xam ne ñu ngi koy rek recueillir auprès de la famille de Habib Diallo ñu ngi ak keneen ci membre famem xanaa ñu jox ko suñu micro rek mu présenté wu ñu wax mooy kan ak lan mooy relation am ak Habib Diallo sëñ bi ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu euh, nga wax ñu rek xanaa lan nga ci Habib jàllo ak lan mooy sa taxawaay euh, ci jouru Sénégal boobule. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen fay di leen remercier ci reportage bi ngeen def waaw ndax bu leen neexoon tam bañ a ñëw ndax fay ñu leen def lu ñu leen dara yéen am seen initiative bu rafet ngeen ñëw fi waaw Habib Diallo man grand frère am laa ñoo bokk koñ bi ñoo géndoo nawetaan fii et puis tamit muy booy bu sëree bu am respect ci nit ñi am respect ci ay magam waaw jël lépp nag teg ko suñu loxo loo wax mu ne la yaxyaa waaw comme nit ki nag bu la joxee responsable dafa diis quoi ci dafa diis waaw moo tax boobu ba léegi dem ba léegi tooguñu gars yi ñu ngi ñuy wër di ma woo téléphone di kii ticket yi suba ba léegi ci ticket yi lañ nekk. voilà ticket yi laa la bëggoon sax ñu gis nga yor ay ticket mu mel ni yéen a ngi waaj bu baax match bi fii. waaw ñu ngi koy waaj bu baax ticket yi moom la ñu waroon nii comme euh, équipe yi ñu wër nii ci koñ bi équipe bu nekk ASC bu ci nekk dem nañ jox la ay ticket malgré bariwul mais lu ci nekk jox nañ ko jox nañ ko gars yi ni leen Habib moo leen jàppali pour ngeen mën a ñëw seetaan ci match bi ngoon mhm.